Euh, mbas mi la ñuy daal di waxtaane ak it lu jëm ci wàllu wàllub candidature yi ci élection locale yi ñu daal di jëm ban taxawaay ban jàngat ci 88 628 98 98. asalaamaaleykum. allo waaw asalaamaaleykum Adama. kooku. fi la di Abdou fi London. aha Birama la. Birama ñu ngi lay nuyu di la siyaare. delloo siyaar. di leen ñaanal seen anniversaire boobu ngeen yàgg koo def. amiin amiin te suñu borom defal leen ak yokkute te yërëmal sëñ Babacar fa mu nekk te Baye suñu borom kàttanal ko ba yéene ji mu am ci si Sud FM mu mm-hmm. àggale ko fu sore sore sore te ngeen dañoo ànd koog moom lu yàgg. Mm-hmm. barke alxuraan waaye ñu ngi leen di nuyu te leen siyaare tey xam ne rek mbas mi moom. Mm-hmm. maanaam yokk bi fépp la fii ma nekk nii démb rek am nañu ay vingt sept mille cas vingt sept mille. kon xam nga loolu moom mbirum suñu borom la moo xam ne kon jógeegu fi ndax. ni fii sax ñoom dañoo wax ne ci xale yi lay loolu lépp ci xale yi école yi moo ko def. Hmm. waaw xale yi moom ñoom ñoom lay daal waaye fi ndool sax booletul mag bàyyeetul ndax ñëpp ñekku na waaye xale yi xam nga ñekkooguñu. Hmm. xam naa li ci baax daal mooy gën a moytu rek te gën a fonkaat ndigal yi nga xam ne moom la ci kër docteur wax ak moom fu waay mën a jëm rek booy génn nga ànd ak sa njàpp def daal yàlla mën na la cee suturaal. Hmm. baax na ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare lu bare bare. jërëjëf. jërëjëf euh, Sylla foofee ca Londres ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 mbas mi la ñuy waxtaane ak it lu jëm ci wàllu pour candidature yi ci gox goxaati yi euh, ban taxawaay ban jàngat ci 88 628 98 98 sa tur di fay ki jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa dootuma bàyyi 88 lay doon 628 98 98 mbas mi la ñuy waxtaane ak it lu jëm ci wàllub élection locale yi candidature yu fës yi fu ne daal di samp ban taxawaay ban jàngat ci 88 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. jàpp na jàpp na dootuma bay. waaw. maa lay ziar Barka Diop Sarr 93 point 2. delloo ziar Barka ca Louga. ah man de damaa kontaan si yéen de Ibrahim. Ah, waaw fii la ëppee waaw ah, kontaan bi daal moo jeexagul ba léegi. fii la ëppee Barka. Eh, waaw man de ñu bari dañ may teral ndax Sud FM ñu bari tamit heure bu ma coupé dañ may woo ndax Sud FM. Mhm. waaw ay salimata yi ne ñi nekk euh, Rufisque ku mel ne Ibou Ngone Mbengue Kenza Ngom. démb directeur dafa génn rek dafa leen a jàkkaarloo rek kontaan vraiment yëg rek yëg directeur bu bu bu bu bu bu bu woyof waay waaw bu ko neexoon am garde corps c'est directeur bu amul benn garde corps Baye Omar Gueye le directeur général hmm. waaw c'est le seul directeur xoolal fépp nag bi tey bi mu ñëwee demb foofu dafa ànd ak garde waaw Baye Omar ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant groupe Sud FM vigile yeeg ñëpp waaw waa service commercial Alsaan Wadd Socé. Mhm. kenn amul seen fay. man nag bu ñuy wax candidat yi. Birahim. Mhm. barka waaw local yi gars bu ñu doon leb di ko ci def sax pour nekk maire fayaat daan ko def. Mhm. mais man de dama ne maire bu mel ni Aly Ngouille Ndiaye war nañ koo bari la maire bu toog ba ne moom day def bilan war nañ koo sargal man nag day sama waay rek bu defoon naka ci dul noonu dama koy wax. Hmm. Moustapha Diop toppandool ne Aly njaay Ndiaye taxawal digg place Yacine Boubou bañ la joxe woon dëkk bi nga leeral waa dëkk bi liñ la jox foo ko dugal booy Diop Louga lan am man nag j'ai créé un mouvement tout sauf Moustapha Diop te Macky Sall heure bu ñëwee Louga danañ xam fu mu fu ba yan tali lañ koy jaarale directeur Ageroute nag dama ko bëgg wax ne Dakar rek senegal waaw ndax ñëw Louga xool ñun danoo mel ne bokkuñu senegal du tali bu baax du lampe bu tàkk du oto mbalit fépp la dem Louga ci autorité yi ñu yor Aminata Mbengue Ndiaye ay miniru si ay Cheikh Yérim Seck ay directeur dem dikk ay gouverneur al Alassane Sall mais Louga tampi waaw tey Louga gépp ko ko wax danaa sax posé candidature danaa nangu sax Louga amuñu mm-hmm. rajo du ambulance ni ko Mor Niang di wax à chaque fois c'est honteux Louga bàyyi ji li dong nga fi daan defalaate amul keneen ku mën a yor Louga benn politicien ñi fi jaar ñëpp échec c'est honte si Louga du tali bu changé lu fa bàyyi ji li deful woon Louga doo ko fa gis jërëjëf Birahim. Mhm. merci a jërëjëf Barka Diop Sarr ca Louga ñu daal di ko jaajëfal mbas mi la ñuy waxtaanee élection locale yi candidature yu bëri yi ak la ca aaju ban taxawaay ban jàngat ci 88 628 98 98. ku bëggul sa tur di fay ki la jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa dootuma bàyyi salaamaaleykum allo kooku yegsiwul alsaan ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Alaaji Birama Ndiaye. waaw Diop. ndogali Cheikh Diop yebbu tudd moo lay nuyu. jël ñoo ngi lay fay Diop. di la siyaar baax na di nuyu suñu barka Sarr moomu. Mhm. di ko jaajëfal baax a baax waaye nag ne ko leer na maanaam du ko nag leer na moom xanaa daa bëgg a sànni xeer ak waaye Moustapha Diop nag mi ngi liggéey maire bu Louga nag def na fi dara de def na fi ay tëli def na fi làmp leer na nañ ñi moom kay mu leen na koo leen xeer nag waaye nag xanaa kay li mu ci wax mooy président bi fi ñëwee moom maanaam yoon yi nga xam ne tey yoon mi nga xam ne moo jóge ba Linguère hmm. yi wi nga xam ne mooy tey yoon mi maanaam jaay mooy sagat Louga ba Mbàkke Kajoor nga xam ne teg def nañ ko ay pota ciment kay kay yoon yoo kay loolu nañ ko nañ nañ ci wax kay waaye nag président mi ngi sàll mi ngi liggéey de kon nag gox gox goxaat yi yaakaar naa ne tey ji am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ndax ku mel ne Moustapha moom ak ku mel ne maire bu Mbijeel Thierno Diagne ak ñeneen ak ñeneen yaakaar naa ñu ngi koy jëte ak yéen askan Moustapha Diop nag mënees na koo sànni xeer waaye wax bu dëgg yàlla nag moom macha allah moom lu ko moom def na fi lu am sola sola sola sola sola ndax boo cookee tey jii fi mu toll tey jii fa jógee tey jii yoona Touba wa tey jii route boo euh, Moustapha Diop moo ko fi def boo jógee télé bi nga xam ne moo jëm kër sëñ Baara ba jëm garage routière Moustapha Diop ko fi def ca lamp yi leer na nañ nañ ak leer na leer na leer bi jóge gouvernance que tarika naka noonu kon Moustapha Diop yaakaar naa ne tey jii képp koo xam ne nii jàmbaar lañ ñi fi nekk nag nañ gën a góorgóorlu daal président Macky Sall ñëwee ñu wax ko seen doole yaa suñu yoon yi nga xam ne moo jóge sagat na ko ba mbàkka yi nga xam ne nu bane bane ba léegi ñu ngi koy natt natt nañ ko ba léegi kon tey yoon ak dëkk yi nga xam ne amuñu courant ñu def li courant ñoom ñi nga xam ne ñooy maire nag ak conseil départemental bi nañ góor góor góor jege seen i militant bu ñu ko defee rek ñu jege kàttal seen comme ni yeneen yi dëkk du ko loolee barka wax dëgg la maanaam euh, Dakar rek ak euh, euh, Matam ak ak ak ak Kaolack du Dakar ak Louga gi nañ ci góorgóorlu waay ndax dafay daal ñëw judd ko fa tees teestu yu xumb kon bu ñëwee tey jii nañ ci jàppale gouverneur ak préfet préfet yooyu ñëpp nañ dimbali askan waxal kaasa nañ seeni dollars ndax askan yooyu kër yi soxla nañ ko de ndax nawet nga dugg si ca yaakaar naa baykat bu bay ba noppi te yaakaar naa ne boo sañoon da nga am lu transparent sa mbay kon nañ ci gën a góorgóorlu def leen ay tër baax na jërëjëf

salaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. Birama. waaw sëñ Mor. ah tey de sonn nañ ci yoon wi de. Mhm. nee na garaaw amul problème. ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp di ñaan réew mi rek suñu borom subhaanahu wa taala Ousmane Sonko numéro 02 ñu gën maa xam ci porte parole Ousmane Sonko rek fële ci attention Jàmmeri. Mhm. ñu ngi lay nuyu Birama. ñaa ngi lay fay Mor. ñaaw waaw di wax rek. Euh, maire yi ñoo war a góorgóorlu parce que nag nit ki tàllal loxo bañ jox la ba pare nga yaax yaax ak def marche arrière li ñu wax nga ma ci dara. man réew mi léegi xam nga lu ko yàq bi naan. lu ko yàq a xoolaat jikko yi moo am problème man jikko laa man jikko yi laa wax. jikko yi lañ a xoolaat léegi. loolu seen sibóoru kat ak dunguru yi wow dunguru moo sonal réew mi dunguru ak di ko def dara di wut ñu dëpp ñoo yàq réew loolu moo gën a dëgg mais gor ñi moom du ci coono képp kuy gor di nangoo liggéey daa ci coono waaw. dafa doxul. Sénégal képp ko tam képp ko tam il faut que les gens osent wax ko coono la ñuy dund képp kuy as gor te mënoo voyage mënoo lépp mënoo euh, terrain yaa ngi ci coono mënoo defar ay faux billets ñu jëlee génn faux billets boo xam ne il faut nga may baraa ko deful yaa ngi ci coono Sénégal gor yëpp a ngi bëgg a góor yëpp a ngi bëgg a dee yow gis am naa vidéo yu ma la yónnee gis nga ñooñu gis nga vidéo yi ma la def ay góor yu set ak ceeb gis nga ko foo dem ci gétt yi léegi ñu ngi yóbbaale ay pot pour bu ñu añu pare ñu dugg ci moo xam dañ def moo xam bu mën a doon léegi dañuy yóbbaale seeni pot loolu loolu loolu mooy émergence bi président Macky Sall digoon nañu ak un million d'emploi bi mu waxoon na dimbale nit ñi président dimbale nit ñi kenn bañu la mais dañ leen askan wi moo bëggee noppalu ko mais xam nga ne Sénégal yi coono ci yoon wi de jërëjëf jëf jërëjëf Serigne Mor Ñaa ca Mbacke Bari ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Ibrahima. waaw. El Hadj Xaas. El Hadj Xaas Mbaye la Mbacke Mbow. ñoo ngi lay ziar leen dokkeel bu baax. delloo ziar. El Hadj Ibrahima yaa waxtaan lu solo. Mhm. muy wàllu gox yeeg goxu xaani. Mhm. mais li may wax toujours Xaas Mbaye mu dëkk Mbacke. amul kenn ku mën a nekk France wala ku ne Louga wala ku ne Amérique pour falal ma sama maire dëkk. maire dëkk yi maire bu ci ne. sooy campagne da ngay wut programme teg soo demee ba gañ maire bi da ngay wax état bu ma jàppalewul làmp sax doo ko mën a sam kon loolu ay caaxaan la xam nga dama ne réew du dox nit mooy dox nit ñi ñu nangoo liggéey ñu dund seenu ñaq amuñu problème mais nit ñi sax ñu sonn dañuy dañuy dañuy ŋarale duñu wax dëgg duñu def dëgg parce que ñàkk wax dëgg weesuwul ponkal mun a leen déngaaral am yi soxna ba leen ca àll ba ñëw Ndakaaru ne faaj faajaar bàyyi say soxla ca àll ba faaw say soxla sonn faaw nit ñi sonn ku li ku bëgg taraanga àdduna da ngay nangoo liggéey ku bëgg a dem àjjana dem jaamu ji yàlla la amoon amatul toog muy dox andi jaxas jaxas ak lagar lagari loolu amatul góor day liggéey waaye député laa te doon député wala damay nangam laa te yow da da liggéeyoo dara faaw sa àdduna métti ku fooyee sa ndaw sax mag métti si alaaji xaas waaw ñëwal ci laaj askan wi defuñu ko kon nag nañ leen si jëlee teg si ñeneen man Mbacke Mbow jëmale ko am naa kàddaa bu saf saf bala ko kenn jël da nga wax ak man salaamaaleykum taala wa barakatu jërëjëf alaaji xaas mbay ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. maaleykum salaam. Birama. waaw alaaji waaw. Ndiaye waay ñu ngi sant alhamdulilah Ndiaye. waaw ñu ngi leen di encouragé ci seen uh, année uh, année école rajo bi. jërëjëf. xam naa ne bu fekkoon am na doyen de maa koy déglu bu doon wax soo xoolee am na doyen. Mhm. kenn du ko kenn du ko bàyyi ma de. Mhm, waaw waaw dafa mel ni. dama leen jaay ba léegi ñu ngi bëgg a yàgg. mais léegi li ma wax gis nga gis nga Macky am na président am lu ma sa wax. bi ñu ko fi posé question pour candidature am. ñu mhm. ne dama ne waaw du ma ne déet. parce que boobu dafa xamal ni bu ma ne waaw liggéey bi tam ci réew mi bu ma nee déet xëccoo bi xëccoo bi dina am. xoolal élection locale bi dong ñu mu ñàkk a fayda mais fi ne kenn liggéeyatul. Mhm. kon ku jóg rek nga candidat la ci élection euh, euh, locale yi kenn liggéeyatul réseau yëpp yéen réseau yëpp télévision yëpp ay jabaar rek. Diomaye rek Diomaye ci kaw Diomaye kenn liggéey kenn deful dara ci élection yi nga xam ne nii ay élection locale dafa dem nii si hmm. léegi nii yaa ngi gis par exemple ci ah, tableau bi ñu ngi préparé élection dañ ko def ba jàll kenn du yegg dara dañ koy def ci gane gane ñi xëy dem liggéey mais si ay dal si nekk nii man daal yaakaar ñu ne dañu bëgg a def ah, ay élection métier mais ñun fan lay jëm hmm. fan lay jëm peut-être laa nga xamoon nag benn affaire di nga di nga fa ay certains entrepreneurs ñoo xam dañuy def xaalis di ko liggéey ku ci moytu élection locale yi bu élection yi passé boo xooloo ci kese la ñu jëmee la jëlaat koy wax nag xam naa ñu ma ñu ma xam naa bu baax la ma ñuy wax bu ñu moytu élection ku ci lekk xaalis boo xam ne da nga ko déggee bâtiment wala ci jël ko campagne wax di nga dinaa wax benn affaire gis man kaw wax naa wax ci benn histoire billaahi wal kitaabi élection élection yi benn candidat bi si ab alaaji bu lam ne ba màkk mais bi ñu ko gagné billaahi ab ab ab ab ñoom de traditionnel la bokk téema ci dem dama ne musulman loon demoon na ba Makka mais duñ ko gañe élection ci la baptisé wu dem dem dem dem dem dem dem sol sultaanam ñu ngi nañu moytu mm-hmm. jërëjëf alaaji Gora Ndiaye ca Sébi Kotaan ñu daal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum aleykum salaam Birama Gora Baye Fall Kër Saalum yow ay Diourbel. Ah, waaw Gora ñu ngi leen di nuyu. waxoon nañ la. ñoo ngi lay fay fii la ëppee Gora. waaw ñu ngi siyaare di ñaanal ñëpp jàmm rek di siyaare di ñaan ci ñun mm-hmm. di ñaanal gudd fan ak wér suñ it ma nekk ci ñaañu njëkk Daara siyaar sëriñ Daara yëpp di eh, mm-hmm. eh, xam nga. affaire local moom dafa simple liggéey daal parce que man li ma jaaxal mooy bu bu campagne jotee kenn ku ne da ngay ñëw présenté wu bu présenté jotee. Hmm. ni candidat laay doon. te da ngay indi programme waaw da ngay indi programme da ngay lamp lu ne ngay indi ko mais biraam boo faloo ba pare da ngay nag ni mënuma dara damay uti damay uti léegi léegi fu ma jafandu waa loolu Birama loolu fan la tegu ah nañu bàyyi woor bi ñuy woor askan ak trahir gi waaw maire yi ci bari dañu faloo ba noppi dañoo ñii dañoo transhumé ndax nee nañu mënuñoo liggéey dara te pourtant ay programme la ñu indi woon ah kon nag nañu xool ñi nga xamante ni bii bépp euh, tey maire yi boo gis mu suqaliku walla wala wala commune mu ngi soxalikoo ci plan plan bi bi nga xam ne moom la président promobile bi président teg njaarim ji ci la soxalikoo li fi am muy marché bi ñuy defar ak muy tali yi fi am ak làmp yëpp promobile la ak ak ak ak liggéeyu président foo demit loola nga fay kon donc maire yi moom ah xam naa ni daal ànd ak ànd ak ki ki ki jiite réew mi daal moom maire bi mu teg moo gën a wóor parce que beneen maire boo fi jëlee fela naa awma dara wa salaam. jërëjëf Gora Baye Fall Kër Sega ñu daal di jël keneen mbas mi la ñuy daal di waxtaanee yokkute gi nga xamante ne ñoo ngi ko daal di leen ko ci fan yi aha waaw Gassama. Eh, ñu ngi nuyu man lay fay. man de Birame ñu wax ci ci mbas mi moom nit ñi farlu xam ne mu ngi fi li mu leen di constaté ku mel ni man de def naa sama ñaari vaccin bu yàgg. et puis nit ñi nañu xam ne. masque yi même su dul mbas mi dafa mën a aar lu bëri ci environnement bi li gaz bi oto yi poussière yi jéemoon nit ñi jéem di farloo di def masque seen bakkan yi seen gémmiñ gi li leen di aar lu dul feebar bi sax nekk ni ñuy tàncaloo ci oto yi kooku nit boppam war na fu muy jóg léegi dugal masque ci boosam su demee toog ndaje boo xamante ni nit ñi bëri nañu mu jël ko rek dina wàññi wax ji dina wàññi toog di wax lu sa yoon nekk ak lu sa yoon nekkul parce que di nga aar sa ñun ñoo war a mën a taxaw aar suñu bopp loolu na ci ñëpp fàllu leneen li mooy maire yi li ma ci wax maire yi war nañu changer seen système système bi mooy nañuy xool gox bu ñuy jiite marché yi même ni mu demee nii dinaam dañ ko war a changer ànd ak jamono marché jaratul nit di dox ay kilomètre kilomètre mbaa ay joxe ci pàcc bi dem ba kàcc bi dem di marché il faut ñu wàññi xool système bi ñu wàññi dajalee nit ñi koñ bu ci nekk pàcc yi ñuy daq na ko maire yi di xool nu ñuy def def ay marché yoo xamante ni day ànd ak jamono jël tuuti nit jël formation nit boo xamante ni suñ ko jaayee ci journée bi mu jeex suba ñu indiwaat lu bees. loolu li koy mën a indi mooy il faut ñu liggéey ñun suñu koom-koom mairie di mën liggéey ba nga xamante ni réseau bu nekk sax la fay la nit ñi di dundee dinañ ko bay wàññi semence bi ñu bay soble bi béy yëpp nga xamante ni ñun li ñuy bay dinañ ko mën a indi ci marché bi marché bi nit ñi jëfandikoo lu ñu indi suba gi mu jeex li koy mën a may nag mooy marché il faut ñu koy def bañ di ko def muy sori koñ bu nekk ñaari ñu nañ fa maire yi xool ni ñuy taxawee askan bi jàppale leen même tabaski bi ñu wax yëpp maire yi war nañu taxaw ba taxaw ci seen askan jàppale leen moo gën ñi leen di fal li nit ñi di wax ñu dagg paas dem ci réseau yi dëkk fa bàyyi nit ñi leen fal di dund dund boo xamante ni kenn mosu koo gis il faut ñoom ñu farlu jàppale ñi leen di jàppale ñi leen di fal xool li nga xamante ni mooy avancé loo seen gox bi ñu féete di taxaw ci jege seen population li may wax toujours mais périman yi ak chef de quartier yi maire yi gën leen jege ñu xool askan bi li ñuy dund ñu mën leen génne ci jafe-jafe yooyu loolu daal yaakaar naa mooy gën toog di wax ay tul bu dégg bëccëg nañu jàppale askan bi sonnoon nañ coono boo xamante ni il faut nit ñi def tout lépp lu waay moom ci xam-xam ci idée ci lépp nañ ñooy bi jege ñooñu ñu jàppale ko ba nit ñi nga xamante ni ñu ngi dund ci gox boobu mu ne génn ci jafe-jafe yi ñu nekk yaakaar naa loolu daal suñ ko defee dina nekk loo xam ne gën ci ñun oyofal mairie bi dund ñëpp oyof yal na yàlla def jàmm moom mi jàmm wàcc Sénégal jàmm kaw. jërëjëf Gassama ca États-Unis biti réew 33 841 22 33 mbas mi candidature yu bëri élection locale yi salaamaaleykum. Alaaji Birama Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar. ñoo ngi lay delloo ziar ajaratu. di nuyu waa Sud FM yëpp. ñëpp ngi lay fay. jërëjëf di leen jaajëfal am cent ans sans ordonnance. amiin équipe technique bépp kat Baye Omar Gueye ba ca góor ñeeg jigéen ñi ñëpp ñu ngi leen koy ñaanal. Mm. ngeen dund santa ans sans ordonnance te seen rajo bi jëm kanam. ndax mm. day ñun de war nañ leen a jaajëfal. ndax lu ñu bëgg a jàllale ci ci defem lañ koy jàllale. rajo bi nga xam ne moom mag ci rajo yi kon gudd fa nag wér lañ leen di ñaanal ngeen dund cent ans sans maire nag population koy fal biraam mm. ndax moom maire bu ci liggéeyut ñu fol la nga abandonné sa gox ñëw Ndakaaru googu tëgg di taal say ventilateur ak say climatiseur bàyyi ba élection jub nga dem ci sa gox ah dajale nit ñi di mitin nag lu ne ñu di ko xam nga nit ñi ñoo war a am fulla ci seen bopp jël seeni i responsabilité maa ngi félicité maire Kaffrine képp koo xam ne yaa ngi daan dem Kaffrine wala ngay jaar Kaffrine jëm sa kaw soo demee xam ni Kaffrine am na changement li may wax yàlla tax ma koy wax Ablaye Wilane liggéey na Kaffrine am na changement am maire bu nu ko falee day joxoñ baaraam ne lii maa ko fi def lii maa ko fi def ñu koy ñaan moom itam diggante Kaffrine nag euh, fee nu mu tuddati Touba yoon wi yàqu na mu defar ko ma ngay defar Poroxaan fee Poroxaan Kaffrine loolu la nu wax waaye maire boo xam ne da nga xuloo ak a xeex ak a ŋaayoo mu élection jotee nga wàcc fa say nit ñëw di leen jox ay waal la nit ñi lank am seen fulaat si fayda maire bu ci liggéeyuñ ñu dàq maa ngi jaale alaaji booy jaw rakkam jooju gaañu yal na ko àllaaxiram daqal àddina hmm. jërëjëf ajaratu Soda Dieng ca Touba ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi. Birama maa ngi lay ziar. delloo ziar. Adama Dieng la maa ngi lay nuyu di la ah. ziare. ah maa ngi lay fay Adama. di la jàmm di ko sàkku teew ñaan suñu kàddu fekk ñëpp ci jàmm. di nuyu mboolem groupe site communication yëpp nuyu sama yaay jooju génn Adja Sori. Mm-hmm. li ñu waroon a wax lépp daanaka wax na ko. comme waxtu wi dafa gàtt. mbas mi daal dañuy wax Sénégal yëpp rek ñu gën a respecté mesures barrières yi te xam ne feer ba nga ni moo ngi. te ñëpp ñu dem suivre programme de vaccination bi nga xamante ni ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mi koy doxal vraiment di ko félicité di félicité docteur yi lu concerné wàllu maire yi nag ak élection locale ak candidature yu bëri candidature yu bëri moom maire yu am njëriñ da ko ëpp solo ñun nag ci Kajoor am nañ fa maire boo xamante ni exemple la muy le maire de Niakhène Moustapha Sylla la xamante ni moom la ñu wax ni mooy meilleur maire du Sénégal wax dëgg yàlla muy def liggéey bu am solo foofu fii ñu nekk Touba wax dëgg yàlla maire bi fi nekk Abdou Lahad Ka jàmbaar la ndax dëkk bi mu jiite xëy na malgré yaatu na waaye lépp loo xamante ni mën na ko mu ngi koy def ñaari maire daal exemple la irréfutable la bu maire Sénégal yëpp doyen ci ñoom daal yaakaar naa ni coow dootu am ci maire bi jërëjëf. jërëjëf Adama Dieng ca Touba ñu daal di jël keneen ca 88 lay doon 628 98 98. dina rek xam li ji. soxna yey fanaan salaamaaleykum waaw waaleykum salaam wa rahmatullah Diop Ibrahima ça va waxal ñu sa ginnaaw ne yaa mujj ah gars yi kon tekki leen bu subaak jàmm ñun ñu siyaare rek di leen ñaanal bu baax a baax a baax nag di kontaan ci anniversaire bi mhm. jërëjëf di ñaan yàlla defal na ci jàmm gën a yokk rajo bi mu jëm kanam di siyaar ñëpp ñi nga xam ne ñii ñu ngi ci rajo bi jigéen ñeeg góor ñeeg ñëpp vraiment kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax a baax yal na leen yàlla defal jàmm defal ko itam auditeurs yi ñu gën a góor góorgóorlu comme ni ma leen di wax rek ndax euh, comme ñun ñëpp am nañu xalaat ne luy defar réew mi rek ak lu koy avancé jëm kanam ci la ñuy nekk nan gën di xalaat rek di gën a personnalité comme ni waa Sud FM ba ñëpp apprécier leen nun auditeurs yi dañ ci am ay part de responsabilité kon nag nañu gën a góorgóorlu bu baax ñu ngi lu nag ñëpp ñëpp ñëpp benn yoon boo xam ne bii rek waxan nañ ci loo xam ne lii eh, am na ko mu déranger wala waruñu koo na wax rek ñu ngi koy jégalu ndax affaire rajo moo demee noonu nañuy xolaat bu baax a baax a baax a baax rek rajo bi moom yal na ko yàlla gën a jëme kanam yéen ñi ci ne yal na leen yàlla defal jàmm di nuyu nag sama doom ñi nga xam ne moom gëj naa ko dégg bu baax a baax ndey xarit Diop ku ko gis seen ne ko sa page Mamadou Diop ay bédé mi ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ak waa rajo bi yëpp ñoom day mareem ñoom tuuti tuuti tuuti rek waaw bàyyi ñu fi kenn daal di ñu liggéey jërëjëf Adama merci. jërëjëf euh, Mamadou Diop ca AIBD ci moom la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Alassane Wade mi fete woon ci xarala gi Sud Éducation moo ñuy wutu ci togg gi buñ ca noppee 22h xam sa élément wan ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu leen di ñaanal panaanub jàmm.